ci des nga ne ko yow lii sa tegtal mënu la man jéem la naa ne xaafisul quran la waaye boroomu karaama la maa ngi bokk ci awliya ullahi yi bu la soobee ma defal la kéemaan bu la neex nga ne ko yet bii soppil ma ko jaan mu def ko ba bii soppil ma ko wurus mu daal di koy def ci saasi pour tegtale na moom xaafisul quran ci bopp ba mu jeex nga ubbi mu tàmbalee ci boppu bàqara tari ba jeexal ñett yooyu ñu ne kan moo ci gën a wóorle ku ci gën a ci tari ci loolu la muhammad sallallahu alayhi wasallam demee ci yonante yi ci borom xel yi daan ko leeral bu soobee yàlla ci kanam kon ndax ki nga xam ne dafa indi ci jaasa jàngalekat bi mën na ko sàcc sàcc ci mën ijaasa bi dafa bokk moom tur mën na ko imité itam dégg nga mën nañ ko ko dénk mu wane ko itam mën na neexlaate itam ñu def ko ko ci def seenaan bi mën nay jabar mën na itam keneen nit koo xam ne ci dafa am ay euh, taxayulaat yoo xam ne xew na waaye ci tari moom kenn mënu la am benn sikk ci li mu def loolu moo tax saaba yi seen xeetu ngëm bokk ci ngëm yi gënoon a dóor kon dégg gi ñu daan dégg alquran ñu di ko jàng ba faw ci seen xel seen kanam ñoom it ñu daan ko jàng dëkke ko di dëkk ak yonante bi sallallahu alayhi mu di leen waar loolu moo daan suuxat seen ngëm alxuraan nag mi nga xam ne nit dem na ba mën cee mandee mën cee nàmp faaw mu am niveau bu àgg ndax alxuraan géej la goo xam ne amul tàkk yemul fenn ndax bu ñuy wàcc ñi nga xam ne gisuñu lu dul làmmiñu arab rek ak rastaayu làmmiñu arab ñëpp bokk nañu saxal ne bi alxuraan di wàcc rafetaay bi nga xam ne moom la ay alxuraan yu rafet ak arab ci jamono boobu ci perfection seen diggante xel mënu koo xalaat loolu di phénomène boo xam ne ba léegi mën a duñ ko expliquer mën a duñu ne loolu nanga ma ko waral explication bi yomb na moo di ca yàlla na jóge jógewul ci mbindéef bokk na ci rafetaayu alquran di yéemoon arab yëpp ñu gëmoon ak ñu duñoon jullit yëpp ba mu ne woon am njabara ci nekk ndax fépp ku dégg Muhammad di tari alquran rek da ngay dal di gëm te doo ko tey ba loolu yóbbu leen woon ci ñu tere ku ko déglu kuy gis Muhammad bi jàng alquran nga déglu ko ñu jàpp la ñoom ñu ko daan tere alquran rafetaay bi mu rafet ak neexaay bi mu neex tax ñoom seen bopp mënuñoo muñ alquran ba mu bis yonent bi nekk ci néegam di jàng guddi ñoom seen bopp bi ñu déggee baatam mënatuñoo toog ñu dal di seen kër di yoot ba kenn ku ci nekk fii ci benn koñ ci néeg bi Muhammad bu jànge di déglu muy tari mënutoo dem ba fajar jot bii di yubbi ñu dellu ñu daje ñoom ñoom ñett ñëpp ñu daje ci yoon kenn ku ci nekk ñu yedd sa moroom ñu daal di wax ne léegi kat ñun ñii gannaaw noo ngi tere ku déglu alquran kon ñu ngi koy tere di ko déglu dootu ñu mën a tere kenn te kon adduna bépp daañu ñëw di ko déglu te kon ñëpp daañu tuub bu waxee loolu ñu daal di ne buñ ko defati ca ëllëg sa ba mu tàmbalee tey jàng mën ñu koy ñëwati ñoom ñëpp kenn ku ci nekk jaaraat fa la jaaroon ba muy ñetti yoon li ko def moo di alquran téere yi yàlla wàcc yëpp wàcce ko ci ay yonent alquran dafa wute ñoom ndax euh, différence dafa am duggante ñuy wax texte révélé ak texte inspiré yeneen téere yi maanaam ci boppam maanaam message bi moom la suñu borom communiqué yonent bi buñ ko yónni mu xa mu wax ko ci lan ya mu namp moom nga xam ne ay wax waxinam la alquran nag noonu la dikkee ci Muhammad yokk ci benn xaraf wàññi ci benn xaraf noonu la ko dikkee loolu moo tax alquran wuute ak yeneen téere yi alquran ñu ne la jiit la boo xam ne amul tàkk maanaam yemuwul fenn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma min xarfin min xawfi alqurani illa walaha zahrun wa batnun wa lilbatni batnun ila sab'ati abtunin xaraf boo gis ci arafi alquran yi am na biir am bitti biir ba amati beneen biir biir ba ba amati beneen biir beneen juróom-ñaari biir juróom-ñaar daf ko wax ngir wane ne lu bari la rek waaye mu ngi ci biir ne amul fu mu yemee ay alquran maanaam yi ci mën a génne kenn xamul ñu toll lay bay ci loolu moo di bi nga xamee ne alquran yéefar yi dañu ne Muhammad ci boppam rek moo ko wax waaye jubewul ci yàlla alquran daf leen a ndëkk ne leen arab yi ne Muhammad ba mu sànni ko doon demoon xamul lan li ngeen xamul jàngul dara yéen itam jàngu leen na ngeen fexe ba indi fukki saar yu ñu alxuraan noonu la nga ne moom la ko wax. kenn mënu ko mënu leen indi leen wenn saar rek kenn mënu ko mënu leen ak jëmm yëpp suñu daje woon it duñ mën a fexe ba indi mukk téere bu ñu doon alxuraan loolu itam lii di défi boo xam ne alxuraan daf koo sànni adduna bépp ñi nga xam ne bëgg nañu alxu ah, l'islam fay mu ngi toll ni suuf. te ñu amé ci ay alal du jeex te nam ñu ci lu dul arrêté propagation l'islam te mu gëna gaaw ci yàq l'islam wala yàq xolu nit ñi ci ngëm l'islam mooy ñu fexe ba sos téere boo xam ne dana xaw a ñu ak alquran ba nga xam ne buñ ko indi woon ñii daañu ne mel na ni ñii ne mënuñu sax dana dugal fit ndax yàlla moo ne bu ngeen indee téere bu nit ñi ak jinne ñëpp buñ dajee woon itam duñ indi téere bu mel ne alquran te bu ngeen indi woon fukki saar wala wenn saar rek u mel ne moom daana nango ni Muhammad ko def kon bu ñu fexe woon ba ñi ñi nga xam ne noonu lislaam lañu bu ñu fexe woon ba confectionné ci arab lii ñu nekk wenn saar rek ci rafetaayam daañu yàq daañu dugal sikk ci xol yi nit ñi nga xam ne dañoo gëm ne alxuraan ci yàlla la jóge saaba yi nag li tax ñoom ñu xam ci alxuraan loo xam ne kenn xamu ko am ci position bi ci keneen amul woon ñoom ñoo fekkee woon asbaabu nuzul maanaam circonstance de révélation yi xew-xew bu xew ñoom fekkee nañ ko ba aaya ji wàcc ñu xam ne lée ko tax a jóg benn ñoom seen bopp daf cee am ci ñoom ñu tuuti ab xew xew am ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne ci bu ñu ci werante fekk aaya wàccan ci moom xamal ko ne ko nangam kat bu xëyee nangamay àtte bi bu ñooñu accès fekk aaya ji wàcc ñu wan leen ko ñooñu daañu xam laaya ji di ko tax a jóg ak